mu indi fii un don symbolique de cahier pour ngeen jox ko xale yi ñu commencé ci njàng bi ndax bëggoon nañu gën a yaatal nag mais temps bi daf ñoo xaw xoj ndax xam yenn école yu ñuy dem léegi nag euh, vraiment di sant tamit ñi fi ñëw ñëpp mu jaajëfal limaat njëkkee ko sama yaay waaw ak suñu partenaire ñam tonton ñes su tonton ñes wax naa APR yëpp ya, waaw rek tonton ñes daal fa laa ya, yem wax naa APR yëpp ya, waaw di leen wax ne kontaan nañu aussi kontaan nañu vraiment si si si collaboration bi te ñaan yàlla mu nekk suñu njëkk njëkk suñu bu njëkk mu bañ a nekk suñu bu mujj ndax suñu yéen ëpp na fii dañu ñaan nag yàlla rattaxal diggante bi saxal ànd bi toujours may ñu tam ñu fi mën a indi at bu jot ñu gërëm mama jaw bu baax seen geste bu mu def muy geste bu rafet comme ni ko waxee rek ndax ku dëkk si koñ nga dëkk si école la sa koñ yaakaar naa ne boo demee si beneen dëkk dana wax ne kii comme njëkk la sa koñam rek beneen koñ boo dem rek dafay dina dina la nax ndax su fekkoon danga ñoo jéggi woon dem feneen dañ naan ah kii dañ koñ bàyyi sa koñam ñëw ñëw ñëw sa koñ yi dama xam def ba di la di la di la sant di la gërëm nga def war a fekk bu sa mu ngi gërëm di la sant rek xale yi une bonne année scolaire

su fekkoon ni ñëpp ñu ngi def nii wala dix personnes def nii kon xale yi daañu dalal tuuti ci fourniture yi parents d'élèves yi daañu am tuuti euh, dal-dal ndax fourniture métti na nag. man nag euh, li ma fi indi rek mooy jàppale jàppale suñuy doom jàppale suñuy rek jàppale tamit euh, parents d'élèves yi ndax ku nekk xam ne jamono dafa metti te tamit suñu bëggee appliquer li président wax mu ubbi tey jàng tey il faut ñu def luñ ci mën naa barewul nag.

Euh, d'ailleurs loolu mooy politique u état bi euh, réeru leen ni ñun nous sommes la pour faire appliquer la politique de l'état au niveau des établissements euh, donc seen démarche yi dañ ko santaane c'est dans le cadre de la des orientations de l'académie mooy des partenaire de l'école ci communauté bi ñoom ñu dugal seen loxo ci affaire école et c'est ce que vous faites par votre geste nous louons ça Et vraiment, euh, si tout le monde faisait euh, comme vous, je pense que d'une ne nekk di wax sax ça tey jàng euh, comme slogan parce que ça serait une réalité ça serait une de nos habitudes. ci kàddu professeur yi nga xamante ne ak mboolem jàngalekat yi nga xamante ñoo nekk ci ci lycée bi di la sant di la di la gërëm di la wax ne dimbal bi nga ñu andil neex nañu trop ñu ngi lay jaajëfal di la wax jërëjëf jaajëf jaraw lak parce que ci ñepp defoon ni yow vraiment affaire bi dina dina avancer lycée fayu nak euh, ñun ñoko ñun ñun ñoo fi jàngale waaye du ñun ñoko ko parce que seeni doom yéen ñu dénk da tamit ku la ku la nekkal sa biir tool nga ñëw fekk ko fa ne ko jaajëf vraiment moom it day day retourner ñaanal la di la ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram yàlla na yàlla yokk man man bi ba nga man ñuy dimbale ay salle classe ay table banc yi nga xamante ne ay ordinateur matériel didactique bi nga xamante ne lycée bi soxla na ko remercier bu baax a baax euh, waa lycée Faye ci yaatal bi ñu yaatal nit ñi ba ñu mën a ñëw fii di leen defal don bu mel nii mais en particulier di remercier Soxna Fatou Diaw parce que li ñuy wax bay sa tànk engagement social bi mu am ba li mu yor as tuut mu yaakaar ne da ko war a bokk ak ñi nga xamante ne ñoom la dëkkal loolu muy actu bu noble te actu bu noble nag nit ki da koy war a wax jaajëf pour mu gën a am jom gën a góorgóorlu ba loolu muy def mu gën ko continuer euh, porte parole lycée bi li ñu wax loolu la fekkoon ku nekk. yaa ngi doon bëy sa waar suñu boolee tey jii duñu soxla kenn mais souvent nit ñi ci yeneen ay activités wala ci yeneen yëf la ñuy gën a dugal seeni alal mais njàngale moom mooy li nga xamante ne ak santé mooy ñi nga xamante ne moo ëpp solo ci kër ak ci dëkk ku jàppale nit ci njànge jàngal askan wi ba ñu am xam-xam ba ëllëg ñu mën a yor dëkk bi ak ki nga xam ne mooy jàppale nit ñi ci santé maanaam ci faj ak ci wér-gu-yaram ñaar yooyu dafay nekk yoo xam ne lu am solo la. bi la xamal ne bi muy ñëw tamit ànd na ak une forte délégation ñu ràññee ci le permanent départemental tonton Ousseynou Niass mi ngi nii taxaw ràññee ci kii nga xam ne nee naa leen doonatul sax ku ñuy présenté ndax Thiès yëpp xam nañ ko ci jëfam ju baax ci jàppale gu muy jàppale président ci dooleem muy docteur Pape Amadou Ndiaye mi ngi ni taxaw ak son ak sunu frère Ablaye Diop ràññee ci délégation yi Salif Diapor mi ngi nële ak maam Seynabou Ndiaye ràññee ci ki nga xamante ni mooy Binta Fall ànd ak rek euh, maam bu njaay mii nga xamante ni responsable femme bu mag la nekk ci jàmm gën commissaire sunu frère moom it ñu koy remercier di remercier ki nga xamante ne mooy Marie Guida mu dollil Macky Sall Binta Diaw Gaymar ñu ngi koy remercier bu baax ñoom Koumba Cissé Fat Touré madame Diop Ndeye Fat Diallo Dieynaba Sissoko Maguette Sarr merci beaucoup ci délégation bi nga xamante ni ñëw ngeen sama yaay Awa Diaw mi ngi noonu moom di bàjjanu Mama jaw ak Maguette Ndiaye ak sunu frère Samb di rakk ci Mbay Samb ak Xaadim l'infatigable ak Cheikh sunu frère ñoom ñëpp ñëw tey accompagner ko parce que tey tabarkàlla macha allah ku sañoon loo am da koy verser école yi. madame la directrice maa ngi lay nuyu di nuyu sama kara maraat yu ma bokkal APR donc tey jii dañ fi ñëw gunge madame Touré Mama Diaw dans un cadre bien précis mooy l'ouverture comme ni ñu koy waxee en pédagogie l'ouverture de l'école dans son milieu Mom, fayu la la jugé nécessaire que nous. avons ay don de cahier yo xamni war primaire bu Sigi Stade mu commencé ko te na c'est venu à son heure à point nommé nous les politiciens, le président de la République, le ministre à travers le ministre de l'Éducation nationale, nous c'est dans ce cadre-là, nous avons parents d'élèves, appelé école, dans un but purement pédagogique. Donc, nous avons dit, nous teew à ay Je affaire de féliciter d'abord ma sœur et camarade de parti Maman Diao, Madame Touré sur l'acte social qu'il a fait, parce que le rentrée scolaire, les jeunes Aïlo, de Kaye, et de la population de Fayou, principalement les femmes et collèges qui sont dans ton quartier. Donc je vous en félicite. En tant que responsable des femmes à je dis que nous les femmes, nous sommes derrière le président Macky Sall pour l'accompagner dans le Sénégal émergent. Et pour cela, on a besoin d'aider les parents dans le social, à savoir le don des cahiers, on est en période scolaire. di leen ziar ci di leen jéggalu aussi di masawu coono ci naaj bi yéen ñëpp ngeen bàyyi seen soxla di gën a tey ci joxe seddon symbolique fii ci école ci di bi di wax à madame la directrice ma sœur, ma ma voisine madame Sow euh, del wax ne la vraiment content nañu ndax euh, lii bi ñu ko defee c'est pour jàppale suñu doom yi fi nekk jàppale aussi les parents d'élèves ndax ku nekk xam na ne jamono dafa metti et la rentrée scolaire bu jotee rek parents yëpp perturbé nañu ndax euh, fourniture scolaire inscription et j'en passe man nag vraiment maa ngi sant aussi suñuy responsable yi fi nekk mënuma wax te remercier ma docteur Ndiaye parce que fi ñu ko soxlaawee foofu la ñëwee ndax xam nga lu neex ci ànd nga nawlante ki nga ko séqal ñoom dañ ñuy soxla ñu woo ñu ñu fekk si leen kon ñu buñ leen soxlaa lii mooy seen devoir lii mu def devoir am na de da war ndax lii mooy tax ànd dem et j'exhorte tous les autres qui la là à parce que lii mooy tax ñu ñu am fit te lii mooy tax ñu am sakk docteur merci ci sa jàppale ndax jàppale nañu ci biir jàppale nañu ci biti tonton Niass yow moom mention spéciale ak port euh, ndaxte am na ñoo xam ne boo nekk ci mbir boo leen gisee rek sa xel day dal boo leen gisee rek sa xel day dal parce que dañ lay mat kilifa mat la wéeruwaay te dañoo nee ne ku amul wéeruwaay da neex ba max di sant aussi sama yaay yi ci gannaaw ak samay sœur samay frère suma ma limee juum euh, madame Sow lii c'est un geste symbolique bu ma indi c'est un lot de 500 cahiers bu ma ñëw jàppale école bi pour élèves yi li président bëgg muy ubbi jàng tey ah, ñu def ci suñu béy ci suñu waar naam barewul waaye nag yaakaar nañ ne dina mën a jëriñ tuuti euh, di wax ne élèves yi ci jàng li ci def yàlla na barkeel te di ñaan aussi parents yi yàlla may leen noflaay muy une réussite ci élèves yi waaw pour bu bañ a guddal ndax dafa am école mbuqwaa ñu ñuy xaar salaamaaleykum mbooloo mi maa Sow Ndeye Fama nouvellement affectée directrice de cet établissement. à mon nom, au nom de l'équipe pédagogique, nous disons merci à Madame Touré Nema Ce geste est venu à son heure. Comme le dit le président Ce geste nous va droit au cœur. Machallah, depuis que vous m'avez informé de votre venue, j'ai informé tous les collègues. Au nom, à mon nom, au nom de l'association des parents d'élèves ici présents, nous vous disons merci. Je ne saurais terminer sans remercier vos accompagnants. Machallah, c'est une délégation qui amène solo. Je ne saurais aussi terminer sans remercier docteur Ndiaye. Machallah pour son geste il n'a ménagé aucun effort pour le développement de la commune de Thiès foo ko fekk rek mu ngi jàppale nit ñi mu ngi jàppale góor mu ngi jàppale jigéen man dama bokk ci benn organisation bu ñuy wax synergie femme ma nekk secretaire général mais keroog macha allah bi ñuy def suñu journée bi dafa taxaw ak ñun ba mu jeex donc docteur jërëjëf yàlla na taxawaay bi yàgg ni ngeen jàppalee maman jigéen ñi ngeen jàppale. te nee naa ko docteur ku jàppale jigéen rek doo daanu moo tax doo mës a daanu ci kaw ci kalam rek ak ñi nga àndal yal na seen taxawaay yàgg. ah Binta man mënu laa fay dangaa fekk démb fekk tey yaa ngi ma démb loon ba tey egsi kon soo ñëwee tey di wax ci maman teew la ñu war a wax njaay waaye dafa guddi fii su ma ko joxee war naa fee war jël parole ndax aw safaraakoo laa dëkk. ak Mbour Tuubaa benn la sama sët bi fi jàng kon maman lu mu fi indi rek tey defal ko boppam de ay doomam la ko defal ah, lii nag mënul ñàkk bés bii ah yaakaar naa ne mënu woon ñàkk ma jël parole nag pour maman dama jël parole yàlla ñi nga xam ne moo ma ko may ndax ñàkkul doom taxawaalu li muy def ñu bëgg ñu mënta bëgg la dama ko tax mama doo jóg ñu ma jotta ko jotta ko ñu nak ma maman nga jox ñepp ñëpp jóg nañu ngi si yow tey nga jox ñu la jotta ko kon bu da lay sant yalla ta dama ma toogee dama tok ak bàjjanam doom da amul bay amul bajjal doom da amul ndey amul amul tante fii sa bajjal di nek ak say tànt ak say sang kon bés fii jomb la ñu bëgg fi dañuy ñaan yàlla nga ñëwaat ci beneen at jurus bi def la nga ne dul bi eh, nga ne ci dara di ci yëngu nga gëstu gis sa waajur toog sa wet defe naa ne loolu mooy sant yàlla te di ñaan tamit si sa yàlla sa teewaay yàgg yàlla na sa teewaay yàgg suñu wet ndax sa boo fi yàggee rek ñun suñu xel day dal fu ma toog dinaa ko wax ndax nee nañu ku wéerul fenn da ngay neex ba ma te ñu dañuy juddoo màgg xàmme xàmmali ko ba tey yaa ngi suñu wet dawoo taayoo bi dafa li mu wax dëgg la de man fu ma neex daa guti dëkk bi ndax yow ndax yaa ko liggéey yaa ñu tracé yoon bu jub du ñu tiit du ñu ragal yàlla def nag boo laaj nag góor bu baax muy suñu kilifa sama papa sama xarit moom dama koy ñaanal yàlla wér ak wérle mu yàgg bañ koy wér di wér tey bu doon naaj tàng bi fii lay toog ci wetam ndax fu ma nekk ma nga fa kon nag man damay wax alhamdulilah di sant sant bu wér sant leen yéen tam ñu ma fekk tey ak yéen ñoom accompagné ndax euh, xaar bi yàgg na defe naa ne 15 jours ba la ngeen a fi toog xaar wu leen découragé wu leen bi ñu ñëwee ngeen wan ñu vraiment un accueil très très chaleureux vous avez été très très courtoise madame la directrice ndaxte mënoon ngaa kat ne ay kay rek la ñu indil perdre suñu temps depuis 15 heures maa ngi toog di ko xaar ko euh, comme fii la ñu tëjal nag su ma neexee dinaa xaw a xaar ba tuuti ngeen baal ma ndax te lii ñu fi indi bare la barewul mais dafa jógee ci xol bu bu sedd guy muy ànd ak yéene di jàppale le président ci li mu wax mooy ubbi tey jàng tey euh, tey buñ fi toogee naam bi ñu duggee ci politique bi yàggul mais dañoo fekk ay mag ñu baax ñu ñuy kerse ñu mel ñoom tonton Ousseynou Niass ñoom docteur ñoom Ablaye Diop Salif Diapo vraiment su ma limee juum waaw sama yaay Kumba Cissé vraiment dina Binta Fall danga nañu Marie Kida mi fi toogal tey eh, dollil Macky ak Marie Moussa sama yaay yi sama bàjjen su ma limee damay juum sama yi ni rekk fi ne sama voisine yi ñoom day faat samay xarit Maguette Sarr waaw commissaire Cheikh Khadim Assane Assane moom mii xamul docteur pour témoigner suñu réunion bëkki démb la jóge mun bokk ci volontaire mi ngi ne en chemise rose mu ne ma volontaire laa ko jàppale nga def don yi kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm di sant aussi suñu coordinateur départemental docteur Augustin ndax jot naa ay encouragement à travers son DC Demba Diouf le président Abdou Mbow tamit woote na yónnee na yónnee na ay encouragement te politique loolu la mooy li ma wax léegi docteur Ndiaye moom moom mention spéciale naa ko xàll nga yoon bi ku fi ñeme da nga kaa gunge te olof Ndiaye dinaan nag ragal féete day xañ wërsëg fii sagatine ak sutura koo sagal mu sagal la man j'ai pas franc aux yeux ndax gannaaw kenn mënul kenn mais ku la defal lu baax da nga koy wax docteur yaa ngi yàgg ndax bu ñu ko defee ne yow di gërëm tamit euh, au passage le DG des ADS su ma ñemee téye micro taxaw la olof na su la lekkee alom na ko ñu remee cooy di la gërëm ndaxte yaa ma fital dooleel ma teg ma ci yoonu politique ba duma ci tiit duma ci ragal pour bañ a nag guddal ah sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp di sant aussi sama frère mi Moussa Diop ak Omar Seck ndax ñoo ma facilité la tâche waaw bi ñu waxee loo bëgg ndax comme da ngaa dugg ci politique lan nga bëgg ma ne ko man damaa bëgg ci développement ak social Pape Maye Diop il nous a remis la fois passée une somme de 1 million ma partagé ko ak suñu famille donc euh, bi ma ko defee njëriñ laa ci gis ndax femme yaa koy partagé muy indi ay yeneen Euh, donc euh, li may jëkk wax mooy jéggulu d'abord parce que vraiment dañu aménagé woon fii di leen xaar depuis ci ngoon préparer nos élèves préparer l'équipe pédagogique fële ci suuf euh, kii bi garab bi la ñu aménagé woon ay table table banc ak ay bureau pour recevoir ces tables là waaw ah ñun euh, ñi moom ñu seen bopp mhm. waaw xale yi il fallait que 18 heures ñu mhm. parce que mënuñu fi nekk depuis 15 heures et quelque ba 18 heures ñu di leen téye mhm. ndax am na ñoo xam ne ñoo nga dëkk ba ay mbuxtaat dëkk ba ay euh, fayu dénga ainsi de suite looloo tax daal vraiment bi euh, daal laa ko bëggee woon waaw mais nag c'est euh, vraiment lii la lii la euh, euh, la ñuy wax ndax yàlla moo ñu may ci mbaaxam ñu mën koo def ndax nit soo nekkee sa njiit sa kilifa li mu bëgg da ciy dox le président dafa ne ku ko mën a jàppale na nga ko jàppale si ubbi tey jàng tey ah ñun nañu jël suñu as lëf bi ñu ci am muy un lot de 3000 cahiers ñu partagé ko ci école yi ak ci groupement de famille mu jox ko seen doom yi ndaxte nit ki boo koy jàppale da koy jàppale ci li mu soxla ku nekk xam ne ne rentrée les classes bu jotee parents yëpp fourniture la ñuy soxla donc ñun ñu jël liñ ci am as néew ñu joxe ko rien que pour rek ubbi tey jàng tey mën a nekk ndaxte ci développement boob ak ci optique boobu la ñu la ñu nekkee moy euh, lu fi président xool na xool len fexe ñu xool fa limu bëgg mo ñu jappalé ko ci ubité jang tay motax ñu jël un lot de 3000 cahiers partagé ko ci population bi wa Fayu Sud sad te yemuñu fofu ndax tas na ba dem na ci ko est dem na est dem na nord donc je peux dire tay ties presque quartier bu nekk gis na ci sa bop te loolu le président bëgg. lol tamit suma ko mënee def te yalla dafa def rek ma ci ak samay natango ak samay kilifa yi ne ci APR bi mu ñoom tonton ñass ñoom docteur ndjay docteur Augustin tin mi nga xamne mom moy suñu coordinateur départemental son DC Demba Diouf le président Abdou mbaw pour na citer que ñep ñu jappalé gis ngeen ko jigen ñaangi ni ku nek am nga sa activité mais dañu bàyyi lepp pour jappalé ñu kon nak dañuy wax liñ fi def tay ñun ñep ñoko def jigéenu APR góoru APR yëpp ko def pour jappalé le président pour rek li mu bëgg muy am tey muy ibbi tey jàng euh, tey. yàlla dafa def euh, mu boole maa nit ku baax muy Pape Mayel Diop littérateur des ADS mu ñëw jàppale ma ma def sama rentrée politique. mu digoon te li mu digoon def na ko mooy jox na femme yi un million pour ñu liggéey xaalis boobu bu ñëwee dañ koo tas jigéen ñi muy tourner ñu leble ko ñii di fay muy générer ay yeneen revenu kon dañuy wax alhamdulilah ci koñ bi tamit def naa fa ay joxe naa fa ay jeux de maillot ci ASC yi muy ASC Sud Stade ak fayu yàlla tam bu indee même ci samay partenaire yi nek muy samay frère ñu jox ma un lot de 3000 kay ma joxe ko ah damay wax alhamdulilah té ñaan yalla rek bunti gëna a ibbeeku lu ñu am rek ñu jox ko askan wi ndax ñun askan bee ko tax a toog ñuy def ni ndimbalu yalla la du suñu mën mën ndax ñu mënuñu yalla mën yalla ñu boole é nit ñoo xamné dañoo bokk fi ñuy xool bokk li ñu bëgg kon nak dañu ñaan yalla yaakar bi ñu am yalla bu mu tass ba tax na ba ñun fi ñu bëgg yegg ak fi ñu bëgg égal le message du président ñu yegg fa incha allah merci madame ok 来来。 <laughs>